tey na xel noonu la ko yéen a kaay kii di l'évidence xëy fësal Abdoulaye yéen mm-hmm. la ko irrégulière loolu la Pape Malick Ndour bëgg def ma Pape Malick Ndour mooy jëwriñ yi nga xam ne ñu nekk wàllu ndaw ak emploi waaye yéen a kaay ne ndax du grand échec euh, politique u mu jëm ci xëyum ndaw ñi noonu la ko yéen a giir yor yor xëy fësale

di neutraliser départ yi noonu la ko yéene kaay di la côté jànkoon xëy fësale enquête lam ñu enquête l'heure est noonu la ko yéene gi xëy fësale yéene kaay gi nekk Sénégal ku tiitu bi na ci ndax fekk na xanaa poto nekkoo si biir Sénégal ndax gis nañ ne am na ci ab gaal goo xam ne ni bàyyeekoo na fële ca Bargny yaboolu solo ñetti téeméeri migrant nee nañ daal li ca mucc daal daanaka ñu toll ci ñaar fukki doomu aadama ñi si des ñëpp kenn xamul fu ñu ne mm-hmm. noonu la ko yéene kaay lanket xëy te li ci gën a doy waar mooy que ñu si bëri ay jigéen lañu ànd ak ak seen i njaboot noonu yu métti yu métti tamit moom la demee ku dem fu la ca euh, Touba mu doxoon ci Baye Fall yi ak lenn ci askan wa benn waaye daal lañ fa jàpp mu doon jaay poon mbir nag finalement mu xababal jàppante tukkee ca ba mu am ci kenn ko xam jot nañ ca yàq bakkanam waaye nag ab Baye Fall noonu la ko yéen mhm. gii di réew mi xëyee amal ab taxaw nga a ko waaye laaj yéen kaay dafa xëyee dellu siwaat ci ëllëgu kii di sabali yéen kaay gi ne sabali mi daal bu ba daal ay mbokkam ñaanal ko parce que boo mooy daal carrière am mën naa nekk en ndax li ko waral mooy que tey ji mënatula jouer ñaari match yoo xam ne gaañuwul mhm. euh, mën naa yàq carrière am nañ la ko yéen kaay gi stade xëy fësalee ma ngi indi ay xamal ne Balla Gaye 2 jamono ji nekk amul ci amul benn combat mhm. amul benn avance boo xam ne ni jox nañ ko kii di Balla Gaye 2 ci digganteem ak Eumeu Sène waaye l'essentiel ak lu ci yoon tam ñoom ñu ngi toog di xaar